sëriñ bi noo ngi deeti ñaan faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu la ñaan ndax yàlla bi sëriñ noo ngi deeti ñaan faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp la ñaan ndax yàlla naatal xarni bi noo ngi dagaan ci musaar ma nekk marwata ak xaqi xamdi mustafa mi yàlla jébal xarni bi ak aqi ay rakam ak aqi seen baay ak aqi Seexi Bambaam tax yàlla naatal xarnu bi ak aqi mbooleem ay rakam ak aqi seen baay ak aqi Seexi Bambaam tax naatal xarnu bi mbooleem muri yëpp a ngi tuun juub balu nu bay bay du sëriñ bi geesul xarnu bi mbakke dangay boroomi mboot te sa njaboot taw kiloot ñu def ma pantal pareet ay laputo waa xarnu bi ama maqam maam di loom waaye muridik ñaama ma wook ne bunu wook salami ñay woo xarnu bi ama maqam waaye murid yi ñaa ma woog ne tawatal te bunu woo saw làmmi ñey woo xarnu bi tey jiik ma wax ba ne pareet ngir yaa ma def antal pareet yaa fa bi xam-xam ni yoreet ci sama xol ci xarnu bi te bul ma tànqam ni ci ñaan ngir li ma bon tey ku añaan murid yëpp la ko ngir bëgg a déggal xarnu bi borom Tuuba jooy perantal na ni jooy bonu fabul leenu ne wooy ku ni yafal bandi fi mu dellu naatal xarnu bi gisunu yaay te noo ngiraam ku ñàkk yaay de namp maam te boot nu ngala daan roggi na mboolem xarnu bi fabal sa doomi yëpp boot ñoom ñu boot seenu njaboot ku mënta boot nga jox ko mboot nga naatal xarnu bi te foog muri suturaal mottali jàkka ji ñu naan fa dolli seen alal ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla di musaa la bax jumaa yi musawaam bam tol ne marwata ak safaa ndax yàlla naatal xabiib boole mëri yëpp jooy ngir lu ñu ma dal di di gooy ba seen yaa ngi booy sarax ñu naatal xarnu bi jamono jaa ngi xiifa xiif lënk gu bi ni ko Seex Bamba ne gën ji mi ndeef mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na yenn mañ yooy xiif tax na góor ndaw di jooy xiif tax na yenn tolli booy sëriñ bi geesul bi tax na ña daa joxe ngi ñi jàpp seeni sas di kenn dootu dem fenn bawaaj sëriñ bi geesul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi tiit bakkaar bi tax na ci tuut ñàkk ñàkk gi tax na kër yi bi geesul xarnu bi sa dem gi tax na ñëpp jooy nawet di sama doot na tooy léeg-léeg mu war ba tool bi geesul xarnu bi xam na yaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu daggal feesal nga saqi xarnu bi siir daa defal du xel dajul daanu dafal daanu tibal daanu leal régal nga mboolem xarnu bi siir ma ndeenu daa sonal yaanu daa amal te ñëppayam kenn amatul sëriñ bi geesul xarnu bi ñoo seeni sag saggiku na ñoo seeni gaay daggiku ñoo seeni gam raggiku na ngir ñàkk gi ci xarnu bi at mu ne ndax muy tane daaw muy gën a dellu gannaaw barab yu ay sax dinaaw ay mbàkke geesul xarnu bi wuyu nu nii wuyu noo ko torox yalwaan amoo ku la garab yi daanoo xob ya laax ba jaama xarnu bi wuyu nu nii wuyu noo ko torox yalwaan amoo ku la garab yi daanoo xob ya bambaay ndaa njaama xarnu bi garab yu mag yi ni jirim garab yu ndaw yi di jirim meññan ma sey mbir yàllam li rek a dal waa xarnu bi allahu akbar allahu akbaru zaman jamono moo mën a safaan xéewal yi daf daa walangaan ci dabbi mboolem xarnu bi allahu akbaru allahu akbaru zaman jamono boo mane safaan xéewal yi daf daa ci dabbi mboolem xarnu bi libeek si keeki saf xareen di woo muy wala ngaan nuy xeli dinaan wataya korone xarnu bi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dim tum nanu tum nanu lan daa defi koon astaghfirullah alazim tum nanu tum nanu lan daa defi koon te mu lu neexuloon boroom sëriñ bi geesul xarnu bi xewali daf daa walwali baawaan ci ñun di kelkeli moo tax ma jóg di pelpeli sëriñ bi geesul xarnu bi xewali daf daa wala ngaan pasxan nga wuute ngaat sayaan xamoo xurak dundak sayaan samduxa naatal xarnu bi wàcc nga yow loo masa wax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu cax sedd nga mboolem xarnu bi wàcc nga yow loo masa wax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu cax sedd nga mboolem xarnu bi